Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ci Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ci Mustafa asalaamaaleykum yéen suñu mbokku taalibe bi nga xam ne a ànd ak ñun seen site bi Ahibahil Khadim TV noo ngi toog suñu jëwuñ ji sëñ Abdoulaye Diakhoumpa yaakaar naa ne du ko ñuy passante ndax ku gis jëmm ji sa xel dana dem ci fulku njaaweem ci taxawaay bi nga xam ne danga taxaw ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan baax suñu bam yàgg may kat yow waaye sëñ Abdoulaye yaa ngi ci bis bi tey di màgg daaw xuddoos fii si kay sëñ Moustapha Mbacke Mohamed ñu soon sàkkoo ay kàdduweet ci bis bi ak ci borom bis bi waaye xam nañu nag relation bi nga xam ne moo dox ci digg ci cofeel gi ci foo yëkkati say kàddu loolu feeñ fi xëy na ko ñaari laaj yooyu la ñuy boole jox la ko ngir loo ci mën a indil si bis bi nga xam moom la ñuy def di bisub Sëriñ tubaa di màggalu Isriina Muharram di guddi gi nga xam moom la sëñ bi fanaan si woon ci dëkkam bii di tubaa te si amoon soit jëlee woon ko njëriñam indi ko fii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi nuyu bokki jullit yëpp fu waaye mën a nekk te di ñu gis. ci réew mi ak ci bitim réew di siyaare kilifay Tuuba yëpp di ñaan sun boroom yokk kattan akuk wér akuk tal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mi fi nekkal Cheikhul Xadim boole ko ko ak njabootu sëñ Tuuba gépp di siyaare njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp al Karim di siyaare borom kër borom pàkk bi ñu nekk tey muy Serigne Moustapha Mouhamed di ñaan sunu borom may ko wér yàgg lool te wér gi ànd ak fan wu gudd lool ba lim yéenee liggéeyal sëñ Touba ci lislaam mu liggéey ko ba am ci ngërëm lu kawe njort ngërëm lu dappetu bi jaahi xaadimi rasuli xam naa wax ji moom wax ju gàtt rek lay doon bis bi bis la boo xam ne bisu jullit ñépp la euh, bisub murit yépp la itam bis bi mooy taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha ci indi sëriñ bi fii ci Touba bërki démb rek bi weer wi teroo am ci mbooloo mu ci sàkk woon ñu waxtaan ceeg ñoom ci laa leen xamal ne Cheikh Mouhamadul Moustapha yan bi mu yanu yan bi diisaay bi sunu boroom mi ko ko yan te jaare ko ci sëriñ bi moom rekk ko xam ndax yàlla dafa dogal Cheikh muy taawu Cheikhul Xadim sëñ Tuubaa daj li mu daj ci lislaam daj li mu daj ngir samp imaan daj li mu daj ngir defar njaboot gi ba ñu doon ay jullit ba saytaani du leen mën a fëkk ba jaamu yàlla doon seen yitte ak liggéey jamono yi ko sëriñ bi daj ay noon la ko siqal yoo xam ne noon yooyu seen yitte moo doonoon li sëriñ bi bëgg bañ a am sëñ bi taxaw ci ba mu am mu daj ci li mu ci daj ci liggéey ma wax ne coono yooyu sëriñ bi dajoon ak mag ñooñu mu doon defar ak liimaan jooju mu doon samp ki sëñ Touba bàyyee samp bi ngir mu suuxat ko mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha loolu yan gënu koo diis waaye muy ku sëñ bi préparé ci wetam yépp ba wet goo ko natt àndaar joo ko natt mu fees dell loolu mook lislaam a ko seq moo tax Cheikh Ibrahima Diop Machar yi am na xasiidatu risaa gum defoon ci Cheikh Moustapha xasiidu gu gudd la dafa wax ne bi muy ñëw di wutu sëñ bi àddina lëndëm na waaye jomi boppam moo tax àddina leeraat bi muy ñëw di ko wuti itam ak njub réer na waaye jomi Cheikh Moustapha moo tax ak njub dekkiwaat mu wax ne léegi Sëñ da koo préparer ba boo dajeek moom képp ku ñuy xool ci yow lu baax boo dajeek Cheikh Moustapha daja nga kooka mata talqahu talqal akaarima kullahum loolu la sëñ Ibrahima Joob Masari wax te loolu jikkoy boppam la wax na ko ca it ne ko Sëñ Tuubaa moo la faggul ak kawe waaye bi la Sëñ Tuubaa faggulee kawe ba noppi nag da ngaa fàggul sa bopp sa kawe bopp dolli ko ca maanaam sa kawe yaa ko yaa ko rëbbal sa bopp ba am ko muy koo xam ne kon taxawaay boobu la def ci njaboot gi njabootu sëriñ bi taxaw ko ci donga yi bu fekkee njabootu sëriñ bi la moo leen samp bi mu wutoo sëñ bi amatul jot bërki démb la ma sëñ maam Cheikhoum sëñ Mourtala di wax ne sëñ Mourtala sëñ Mahamadan xariloo ak sëñ Aliou Mbacke sëñ Moussa sëñ Moussa daana ànd ak ñoom di tukki waaye bu tëral bind jotee moo leen di tëralal moo leen di tëralal bind defe naa ne jàngal na leen ba jàngal leen risaala ba egsi ci buntub xaj mu bool leen ak sëñ Abibu kon léegi bi mu wutoo sëñ Tuubaa da ko wuutu ci xamal njaboot gi xam-xam seen faratay jëmm waaye boole ci taxawaay bi sëñtuwaa Tuubaa daan am ci taxawu njaboot gi ci lu mën a doon loola bàyyiwu ko kenn wax nañ ne ñam bi sax bu masaan a sotti moo koy séddaleel boppam dox yi na ca daara ji tarbiya moo leen di saytul boppam gan ñi siyaare si Sëñ ci moom lañuy yem tubaab yi séqoon nag sëñ bi dara te bàyyiwuñ moom lañuy ñuy dajeel loola ca la waxe ba ne mu donn ci sëñ bi tedd nga ju rëy ju rafet joo xam ne soo dikkee ci moom su ngeen xasee gisee dootoo bëgg a dellu dootoo bëgg a dem ngir li muy bàyyi ci yow ci jikko ju rafet ci jikko ju mat ci jikko yu tedd am na ku ñuy wax sëñ sëñ Galas Mbàkke doomi sëñ Moodu Roxaya la barki démb la ne ma sëñ Moodu Roxaya bi muy dund ñaar munta waxtaan ci ñoom ndax balaa waxtaan wee jeex mu yàqu muy sëñ Touba ak Cheikh Moussa kon kooku euh, ci laa waxee ne murit bu ne li nga liggéeyal sëñ Touba loolu wax naa ko murit bu ne li nga liggéeyal sëñ bi am na ca lool bu la sëñ bi dee fay dana ca cof jox seex mu Moustapha ci sa liggéey bu noppee nag beral sëñ mu Cheikh Moustapha payug boppam goo xam ne yoonu kenn du ca nekk fit wi dikk ndax lim lim li ko sëñ bi bàyyee itam sàmm gi am na ca loo xam ne faw fit gunge ko fit wi dama damaa wax ne sëñ Mouhamadul Xayri Jaxate moom sëñam satu dafa maa nettali ne ma tubaab yi dañ doon xeex sëñ bi ci zahir ba sëñ bi faddu leen ñuy xeex ak moom ci ci ci gannaawam loolu mooy nee na gouverneur mas naa convoqué Cheikh Moustapha Ndar mu ñëw mu ne ko xam nga ne sa baay suñu prisonnier la woon te am na luñ nësër ci moom mooy fii nu ko denc danañ ko fi jëlee yóbbu ko France denc ko fa ndax xam nañ sëriñ bi yàpp yaramam du soppeeku te loolu la da koo ñaanoon suñu borom wax fas liyal gis ma xay su ruuxu faaraxani fil xabri laa tubliyanhu dahra yàlla kon du soppeeku rabbi qini inda al mamaati sakarat waliya fi darihati jut jut bi sabat dariha mi jëmmi sëñ bi ci biir lay nekk te du soppeeku mu ne Cheikh Moustapha loolu nag lañ bëgg xamuñu nag ñu bëgg cee waxtaan ak yow manu na wala mënuwut nee na mu ne leen ah, manu na de ci kaw ngeen fexe ba ku ko dund ku ku mu jur doo dund kuy deretam doo dund ku ko yaakaar doo dund ñett yi boo amee rek li ngeen bëgg mën naa nekk loolu aw fit la bu ne ku ko jur doo dund kon moom li tubaab yi bëgg a def joxe na bakkanu boppam kon moo ci jiitu moom moom la ñuy a jël bu ne kuy deretam doo dund kenn du ko ca jiitu ndax ña ña yor deretam kenn jiituwu ko ca bu ne ku ko yaakaar doo dund moom kenn jiituwu ko ca ndax murit yi ko yaataar yaakaar moo ne ca bopp ba kon moo féetewoo bopp bi ngir fas yéene loolu bañ am loola taxaw na ca ba amut loolu sëñ bindal boppam ne bokk na ci teraanga ji ko yàlla defal mooy bañ bañ bañ a génne yàpp yaramam am réewam ngir njariñ ay réew ay réew akramani bila xuruji badani min watani bi nafay ahlil mutuni teraanga jooju nag kon Cheikh Moussa liggéey na ci lu rëy rëy rëy kon yaakaar naa ne amatu naa si bépp ñoo ko yoreel njukkal ci taxawaay bi mu leen taxawu ba li bi bàyyi nga xam ne mhm. loolu sunu defaru ca lay jóge dara xajamalu ko dara yàqu loolu jomam ak xam-xamam ak ku fitam ak ku dalam moo ko lijjanti santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werente te ka ci Moustapha Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci mustawa